laaj nag sama copain maa ngi lay bëggee. Babacar maa ngi lay fay. maa am nga jàmm. waaw maa ngi am jàmm lu bi fii tey. waaw teewaay bi dama ko waral suñu rakk xew la Boy Niang. nekk rakk ju baax aussi rakk ju mu déggal koo xam ne du def dara te waxu sëñ bi lu mu ciy def day waxtaan ak ñoom tey moo am bisam. yàlla dogal mu am gan ñu ñëw pour gunge ko aussi que mu teral ganaan maa ngi leen di ñu ànd ñëw comme nekkal fi waa Pikine yëpp nag teewal fi mbëri Pikine yi teewul yëpp nag. man leen Ama Baldé soq mooy Pikine yëpp seen mag Eumeu Sène moo leen fi teewal waaw loolu moom fi ñu tey day la baax Eumeu l'homme de taille si nga man lay bëgg waaw jàmbaar ñu lay fay baax ma am nga jàmm macha allah sant yàlla naka réew mi sant yàlla bu baax yàlla fi jàpp yàgg di nuyu Sénégal yëpp ku nekk turam ak sant tey Boy Niang Sarak sa lépp ku ne xam na seen mu am tay bébé ñu koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér bébé bi dañ koy maye nga teew sa digganteeg booy maa ngi sànq rek sama digganteeg booy ñaar yàgg la parce que sama papa papa mère bu ànd ñu bokk Pikine ba fa dem aussi ñëw noonu ak ñu baax ñu am yar te du fi dara te tàgguwuñu ñu tamit duñ dugg dara te kon tey aussi tamit bu def rek bu ñaari bëtu om yu dul kay ñaanal suñu borom yeggal foofu soxna am tamit si ma koy ñaan yàlla musal seytaane mun ànd bu yàgg seen doom ji tam aussi yàlla na am ay rak yàlla na dem tam aussi bañ koy may ñu teew yàlla na du am ndey am baay mel na ña nga ñu ni toog de

dafa nii coow li dafa jógut lanjang wax na lii te Bakar ne lii la ñu ko lanjang wax ba ma seen pare na pour boole ak Balla Gaye olof nag dane ah tundu bi coow ñu nekk seet yaa ngi nii toog dégg nañ la mais koy féete tey ñaanal tey ñu gëte bu toll nii yaakaar naa waxulaan moom dañ koy beneen rek. njàppee suñu xam dañ toog gën a yaatal mais li li duuf yëpp xaju ci xaju ci li xamul li duuf ci nag bi xaju ci li tey nag xam naa duñ mën a sori ci débat boobu parce que li ñu fi indi moo tax incha allah xam naa dañuy jàpp benn jour boo xam ne dañuy toog waxtaan parce que am na lu ñu war a wax je pense que rek ci waxtaan ak lañ ak su ñu defee toog rek woote gars yi toog luñ ci war a leeral luñ ci war a wax yëpp boo ko ñëpp comprendre ko noonu ah, oto nag lu mu xam-xam yóbbante da ciy xaj dañuy ñun dañ xam nga waa làmb moom ñun bu ñu amee occasion rek dañ ko bëgg exploiter ñun waaw li wax yëpp dëgg la mais tey comme tudd ñu indi dañuy ñëw ci xew waaw da nga ñu nangul lool rek prochaine fois bu ñu waree wax te fu ñu war a waxee ñu waxtaan yaatal ko parce que ñun ak yéen kenn mënu dem bàyyi sa morom parce que tey ñoo bokk liggéey bi kon mu nekk suñu liggéey suñu amee luy jàll ci yéen lañ koy jàllale yéen tey bu ngeen bëggee jaay seen image la dara yéen ñëw kon ñoo bokk liggéey bi mënuñu leen ko xañ mënuñu ko bañal loolu foo ma waaw dañ def sorti am na ñu war a wax ak fan ñu war a sart bi kañ la. du yàgg dara am na lu ñuy waajee tamit du yàgg dara après dañ na lu ñuy waajee tamit. mais lañ daal lu mu wax ëmmaa ko wax wala. waaw xam nga làquma la anglais nag olof laa la laax waaw moo tax ma ne làquma la anglais olof laa la laax waaw loolu dañuy jàpp benn suuf parce que bu ñu ko waxee fii après bu ñu wootee loo xam sens waaw incha allah. Balla Balla ay wax nga ko gisal seetaan nga ko de def waaw seetaan naa ko mu wax. dégg naa ko tamit bu baax lu mu wax yëpp dégg naa ko li mu wax rek mooy que kon dañu ne ci xew ya waaw nañ nañ ñaanal suñu doom ji rek ñaanal suñu rakk mais li ñu war a wax ci loolu lépp incha allah nañ ci waxtaan. dégg li mu wax bu baax. dégg naa ko seetaan naa ko dégg naa ko bu xew fii xewu jàmm la ma des na fay waxee dara de. waaye li la di ñaanal nag murit yëpp nag ñëpp Sénégal ga taalibe yëpp ñu màggali ci jàmm dem ci jàmm seen màggal gu ñu def yàlla suñu borom nangu leen ko ñu dem ci jàmm si jàmm kenn bañ a manqué benn accident bañ a manqué ñaan ci barki yaa Rasuul moo koy ñaan ci barki Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ ci maa ngi gën a bëgg ci yéen. rendez-vous war naa gaaw de la. mais mais xew jàmm la. Balla nee na heure boo ko a wax da nga a la ëpp yaa ko daan yaa ko daan mais moo la ëpp victoire moo la dàq bëri loolu doo ci wax. bàyyi Serigne Saliou ni 25 la ko wax. man duñ ko duñ man yàlla xam ne mënoo ma wax te du ma ci nekk xam aussi di ma ne tontu nii wala nii. wa bi kalimika Moussa Salih. ëppoon na seen ay victoire yoon wa Ismaïla yallahu wa bi Souleymane. mais dàq bëre ma seen. non dàq bëre mais nañu xool combat jàkki combat yi métti combat choc yi. ñu tànnal ay beñ rek ngay capp suukar bi di maj loolu dafa yomb. Balla yooyu tam niru na ko ñu tànnal beñ. waaw mais nañu xool combat a gi rek nañu xool combat a gi rek. est-ce que Balla est-ce que moom loolu mënee wax boobu la mënee xasante di gérer ay détails wax loolu la mënee man nag mënee wu ma loolu xam nga man lu ma nit ñi xamee mooy wax wax ju rafet. bëgg a dégg lu rafet bëgg a gis lu rafet moo dem wax sama noppi lu lu baax laa ci a dégg sama bët yi baax laa ci a gis sama laa bi tamit rafet laa ciy génnee moo tax pour ma tontu ko dafay xaw a métti waaw moom nag noonu la ko noonu noonu waxee waaw kon duñ def rek loolu xam nga bàyyi rek mu wax man ma jàpp sama ñàmb rek waaw. mais wax ji doo wax wax doo ko jéem a faj. non non non yàlla baax na. da ngeen di def laabel nga faj wax ji ñetteelu combat. jàmbaar kon lañ ne ci xew daal. ñetteelu combat laabel ngeen nga faj wax ji nga tëj ko léegi. jàmbaar dañ ne jàppale ma rek dañ ne ci xew ji. bëgg nañ loolu de laabel yàgg baal. ko yàlla may jàmm. waaw dëgg la de. Mohamed. Mohamed Dombala. Mohamed Dombala. sama fan si la. ak buri sama jabar ji maa ngi koy nuyu bu baax si seen di koy ñaanal yàlla na ko yàlla may jàmm di ko ñaanal Sa Thiès di ñaanal Balla suma xarit sama doom ne Balla sama xarit la su ma gars yi yëpp ñu ko jaxase rek

dañ ne combat am taxoon ak Tapha Tine bañ dem ba ñu war a signé ñu ne combat ba yàqul da ngeen a daw deux heures da ngeen a ragal Tapha Tine wala da ngeen a parewul. non ragal amu ci ñàkk pare amu ci mais xëy na plan de carrière am lay lay xool te tam aussi loolu am na ci droit du léegi waaw moom mooy xool parce que tamit combattant bi moom la affaire bi concerne ak stafam kon mu ngi ci waxtaan ak stafam ci waxtaan di ci xalaat. mais ragal moom ak ñàkk bañ a pare mun koo mën am na. ah gars yi dina damay dégg gars yi bari naan est-ce que Pikine léegi ragal xaw faa dugg. non non mu nekk loolu ci ci nit ki lay nekk waaw ah, Pikine moom yàlla ci borom a defaloo waaw amuñu amuñu ci dikaay mais Tapha Tine moom ku ko Ama mënta jël yow mënoo wala. Tapha Tine dégg naa la gën a soxla de. non man fu mu toll nii maa ngi waaj saison prochaine incha saison bi. bii di ñëw saison bi di ñëw dañoo bëri. moom saxal ma maam bu yàlla tuddee. saxal maam mi seen booy ñam. mais yaa ngi ñaq rek daa mel yaa ngi entraîné de. yaa ngi ñaqee tamit yéen ñëpp yéen ñëpp promoteur yi ñii def naa sa diggante euh, kii war na ca mën a Pape Thialis Faye. waaw moom nit ku baax la Pape Thialis. moom moom Thialis moom nit ku baax la su ma waay la wax dëgg yàlla borom baax la. te lamb ji jeexul rek moo leen promoteur la nii ñoo ngi ñëw tëgg rek dañ ko nekk jokkoog ñun. di waxtaan ñun même bu laa bëgg jeexee tamit relation bi day continuer suñu nit la jàpp nañ ko jàpp nañ ko ba faw tamit bu ko baax la waaw suñu gis ci moom wala dafa ñeneen loo xam ne sax dañu war a métti leen loolu toujours su loolu la di koy ñaanal di koy ñaanal famille yëpp njaboot yëpp. mel ni jig na la de moo la tëgg nga jël waa des saret. waaw jig na ma trop. waaw mais est-ce que lu tax daaw gis nga ko ren daaw ah daaw gis nga ko mais est-ce que ren dinañ ko gis. mu feexal bari na waaye ba mu feexalee seen maam yemu ca mu ne ndax ren dinañ la gis ren waaw non moom moom moom moom suñu xarit la dañu ko def sama xarit kon ma loolu leer na de dana dina ñëw de loolu yëpp ñoo far ay jëm